processus la déjà d'abord dañuy ñëw ñu or bi dafa am ñaari parti soit dañ koy importer wala ñu tëgg ko fii dafa am ay bijoux importés yoo xam ne day jógee Italie ñëw Dubaï ñu jëndee ko dubaay indi ko fii mu jaar voie normale nag beneen bi mooy suñ production locale bi tamit am na yoo xam ne moom la ñuy produiral bu ko defee ñaari bijoux yooyu nag la ñuy boole proposer ko clients yi loolu la noonu koy defaree euh, yéen da ngeen doon exploité maanaam da ngeen di jënd. waaw xam nga ñun ay commercant lañ dajaar mais am na ay producteur am na ay bijoutiers yoo xam ne ñu ngi ci mbaar yi ba léegi. nday ji boo seetlu ñu ne la bijouterie yi mooy euh, euh, corps de métier presque buy gën a kii ci emploi ndax ñun dañuy former ndax kiiwu familial la. donc bu ñu defee production locale bi ba pare ñoom bu ñu ñëwee dañu ñu koy jaay aussi. en plus am na loo xam ne tamit dañ koy exporter am nay bus yoo xam ne dañuy dem ñu jëli ko itali indi ñu jëli ko Italie ou Dubaï ñu indi ko Sénégal mu doon ay bus yoo xam ne différents modèles la am na bus yoo xam ne par exemple c'est européen am bus yoo xam ne c'est asiatique moom la ñuy wax exemple euh, bus yi bus européen la bus yi bus euh, asiatique la mais aussi day am bisu local locaux yi. am bisu yu jógee extérieur ak yu ñu fiy defar ban moo sa gën a baax yéen ban moo la sa gën non or lépp baax na mu nuroo tey jii nii muy li ñuy wax lii nga euh, si tailleur yeeg yooyu mais or lépp baax na modèle bi rek at choix modèle bi moo am solo at or bi ni ko tëggee ndax ki la ko bind jën jaay ban garantie la la koy jox nit ñun en général bu ñu jaayee da ngay bindal nit ki facture bi ci biir facture bi da ngay def nombre de gramme nombre de euh, ban titre la maanaam ban carat la 18 carat la wala 21 carat la soo paree aussi. nga bindal ko nombre de gramme bi ñaata nga koy jaayee nga jox ko prix bi donc facture boobu nag mooy dem comme garantie loolu la mais processus bi moom fu ñuy jëlee or bi tamit beneen processus la ndax comme nga umpale woon ne Sénégal mu ngi mu ngi mu kii or xam naa di nga ñëw sax ci question boobu produire or mais pour vous dire rek que ne ñaari bijoux la ñuy euh, offrir clients yi muy benn boo xam ne c'est importé at boo xam ne Sénégal lañ ko tëggee. Mmh. Oh, ñoo nga si léegi euh, Sénégal de produire or. est-ce que euh, fii or bi ñu produit si ci ci réew mi ndax cher na ci yéen wala déet. waaw pour vous dire vrai or Sénégal presque gisuñu pour vous dire vrai loolu boo ko waxee dina jaaxal ñu bari gisuñ or Sénégal ndax lu ñu waroon gis dëgg dëgg dëgg tey jii dafa waroon am lu ñuy wax comptoir d'or comptoir d'achat et d'or te loolu moo njëkk a doon problème déjà am na benn association nga xam ne ñun ca tënk muy l'association nationale des bijoutiers du Sénégal bokk naa ci même suma ma waxul si seen tur tey man je parle en tant que Alpha du Thiam marchand de biens mais ñoom def nañ benn étape ubbi benn comptoir d'achat d'or mais ba léegi gouvernement bi jéemu ci def lenn pour mu fonction pour mu dox quoi loolu nag ñu koy naqarlu lool. fu jamono toll tey ji Sénégal di produire or munoo am comptoir d'achat d'or boo xam ne digne de son loolu vraiment lu ñu naqarlu la ñun en tant que marchand de bijoux ak bijoutier yu nekk Sénégal oru Sénégal gisuñ ci lenn ay miet nga ciy gis te loolu bon euh, gaayee forforaat foofu ñëw jaayaat la ko par rapport ak lu ñu fay exploité milliards yi ngay dégg ñun gisuñ ci lenn. bon ñun or bi ñun par importe leen ñuy jaay. importé la ñuy jaay ndax euh, brut bi mënuñu ko gis mënuñu gis brut bi parce que brut bi Sabodala lay jóge te tubaab yee ko fay exploité yóbbu ko Europe kon léegi tëgg yi tëggatuñu li tax tëggatuñu parce que gisuñu or bi ndax amuñu dépositoire bu ñuy jëndee or boutique boo xamante ne bu ñu soxlaa kilo or foofu lañ koy jëndee amuñu ko tey bu ma soxla woon kilo or munuma ko jënd. mais bu ma soxlaa bijou un kilo mën naa ko jënd te loolu du intérêt bijoutier yi nekk ci Sénégal gépp xaalis la ñuy tëgg parce que tëggatun or li tax tëggatun or parce que gisatun brut bi bijoux yi li fi nekk importé la Europe lay jóge ñëw jox lu ñu jaay te état bi xam nga lu mu nu war a dimbalee fexe local bi fii nu favoriser ko di ko liggéey ku nekk mën ci jot parce que dëkk li koy doxal mooy ressource bi fa nekk bu développé yomb nit ñi di ci takk day neex